ci Tivaouane big bu ngeen bindee amuleen ko util pexe monsieur le monsieur util pexe. uti nañ pexe nag ba équipe municipale bii dinañ leen bàyyeel benn mairie bu rafet boo xamante ni nii tabax nañ ko ci tabax bu gaaw d'ailleurs dama jël décision balaa ñuy ñëw su ko jot gi maye ma woo ay pent ñu peintiraat ko beesalaat ko ba mu bees tàq ma soog ko bàyyee ak ñoom. dinaa leen bàyyeel administration bu jaar yoon dinaa leen bàyyeel ay ndaw yu mën seen liggéey bëgg seen liggéey dinaa leen bàyyeel benn état civil boo xam ne dañ ko informatiser dinaa leen bàyyeel organisation boo xam ne suñu ñëwee jafe-jafe yaa ma amoon man pour jël temps pour créer administration ñoom du ñu am jafe-jafe boobu dinaa leen bàyyeel ay chantier yu bari ndax dinaa leen bàyyeel ñaari parcours sportif yoo xam ni marché yi lancé nañ ko bu ubbi nañ prix yi benn bi ñu war ko def li jógee Auchan jëm ko Soxna Aïda beneen bi ñu war ko def li jógee sapeur pompier jëm ci ci biir jëm côté Mboulay da waaye dinaa leen bàyyeel tamit ci HLM benn terrain omnisport boo xam ne war nañ ko defal defar koppar yemb na ba pare dinaa leen fi bàyyeel benn chantier boo xam ni defe naa def nañ installation de chantier bi mu doon benn poste de santé day am maternité am logement am également